ñun li ñu gëm mooy dañoo nekk ci am réew moo xam ne daa am ay loi ak ay reglement ay nit tënk ko ñun ñëpp ñu war a tënku ca loolee taxaw ci réew mi ndaxte li ëpp solo mooy réew mii socle bi constitution bi la te constitution bi dafa am nu mu tëddee ñun ñëpp umpalewuñ ne ba ñuy wax waxi parrainage am na ñu ne woon parrainage warul am te teewul ñi doon wax parrainage warul am dem nañ wuti parenage pour bokk ci élection yi kon xam na ne réew mi am na yoon ñu jóge ci parrainage yooyu ñu ne parenage kat buñ ci jógee ci lii leen jëm ñu seet ne ña nekkoon DGE ak comme ñun nan fa nekke woon déposer lañu war a déposer ca waxtaan ko war a su ñu demee ba DGE constaté ne am na ay manquement te ñoom ñu dénkoon leen loolee te ñoom it ñi koy wax tey jii ñoom ñëpp ku ci bindul tweet tamit am nga loo ci wax ñun ñii di sénégalais itam constaté nañ ne manquement yooyee yëpp li ci ëpp ca manquement ya ca ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci ku jegeegul ca la jóge ñoom nangu nañu ko ba ci seen chef de parti am nu mu bindee am nu mu waxee su ñu toogee ba tey nag muy parti au pouvoir muy ñi nga xam ne ñeen ñenn ci opposition bi ku ci nepp sénégalais constaté nañ ne ñoom ñëpp am nañ ay manquement ci seen i liste ñun dañu wax ne fanu jaaroon ñun ba tegu ci yoon ba yoon may ñu ñu mën a dem assemblée mën a dem élection législative ñëpp la loolu tënk ñëpp ci war a tënku forcing nag élection du am ci réew mi loolu dama ragal ne waxu ku daanu ci saret lañ ndax sénégalais yëpp ñoo tolloo aux yeux de la loi sénégalais yëpp ñoo war a tolloo aux yeux de la constitution et que li ñu yoon may danañ ko def ñun de yoon wax na ne impair les serviteurs jekk ngeen pare ngeen li ñu war la woon ak yéen def ngeen ko dingeen dem élection dinañ dem élection incha allahu rabbi amul dara lu ci changé Sénégal lañ bokk Sénégal lañ dëkk dëkkuñu ci beneen Sénégal fii rek lañ nekk. li Sénégal wax nag ko ci loi ak i constitution ak leneen loolu dañ koy wéyal incha allahu rabbi impaire les serviteurs au non de son président Hamidou Thiaw dañuy dem élection législative yi incha allahu rabbi